ci gémmiñ du dàq dara ayca jaajëf Lamine en tout cas c'est un combat bu nga xam ne ñoom ñaar ñëpp ku leen